je pense que euh, euh, dans cette affaire là li li Lamine ngay wax rek parce que dafa c'est-à-dire que euh, peut-être que nous ñu gis mais yi nga xamné yépp dafa jiitu ci ay procès ci li dem cour d'appel li dem cour suprême ba aujourd'hui le tribunal d'instance de de de au moins même bu vous né yow gëmuloo ko woon sax na le blason à la justice du Sénégal parce que c'est une justice qui xamné critiquée. dañ ko critiquer dañu dañu ko critiquer ci li nga xam ne moom moo fi jot a jaar yépp et aujourd'hui ñu bari bu ñu doon wax ne justice bi euh, dafa tëddee euh, benn boor aujourd'hui le droit a été dit parce que ki nga xamante ne dafa far ci beneen côté moom la ñu jox dëgg dans dans cette affaire mais non euh, sumay may dégg nag nit ñi di wax ne nañu def ndànk nañu xaar parce que xamaguñ lan comme si dañuy dañuy déjà di di di di dànkuwaafu que ne mën dem cour suprême ñu neenal ko comme dans l'affaire affaire Mame Mbaye euh, les les ñi ànd ak Ousmane Sonko dañu jubilé parce que ba tey mi ñàkkul woon ay li nga xamante ne mooy procès bi dañu ko daanoon bariwul et que finalement ñu yóbbuwaat ko ñu attewaat comme si ñi nga xam ne ñoo far ak nguur loolu la ñuy prévoir ci xelu nit ñi que ne attention euh, c'est très tôt de crier victoire parce que amogulendam mais de toute façon li mën am hmm. c'est vrai que l'État a le droit les avocats de l'État ont le droit. Hmm. aujourd'hui am faire fukki fan pour que nous interjeter appel. mais taï li ñu le droit a été dit Mohamed. Hmm. parce que nous nga des experts électoraux nous ñi nga a qui seen xam-xam màcc na ci ci li muy nettali moom mooy aujourd'hui jàpp naa ne l'état dafa am problème pour justifier li nga xamante ne mooy ñàkk jox Ousmane Sonko euh, ses fiches de parrainage. parce que aujourd'hui Ousmane Sonko est candidat wala il n'est pas candidat loolu c'est une autre étape. boo xamante ne kenn moom moo ci war a mën a prononcé wu ci li ñu xam ci histoire bu Sénégal ak li ñu jàpp pour des faits similaires même si du même fait yi boo jëlee Karim Wade ak Khalifa Sall dañu leen radié woon ci liste électorale yi. wax naa fii ne Bernard Casimir def nañu conférence de presse ak la wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci seen ay radiation mm-hmm. mais terewul jox nañu leen seen ay fiche de parrainage même si vous faites ne ñaari mbir yu du ben pourquoi ko jox Ousmane Sonko ba mbir mi dem ci procès mu nek xëccio encore intention tension ñu cour suprême tribunal d'instance bu jox leen après ñuy nit ñi attention mën nañu dem cour suprême mu mu neena leen xam nga luy dëgg moy mm. Mohammed. Mm. war nga mëna dem ci élection nga dem ci élection wut batu askan wi mm. dëgg la nak yoon dafa am ci réew il faut respecter li nga xamné mom la fi mais encore benen recours wala benen ping pong bu mën a indi yeneeni jafé jafé je pense que ne daf ko jarul c'est-à-dire que amul luko wara meuna jax ci politique et quand je j'entends Ibrahim pour dire que né euh, état mm. dina fexé ba du may Ousmane Sonko fu pas bokk ça. rek maa comprendre alors l'état fera tout mm. qu'est-ce que vous avez ah, dit waaw parce que man lima comprendre mooy l'état fera tout ba du bàyyi lii mu jàll loolu laa comprendre. waaw yow li nga comprendre li ma wax beaucoup. waaw léegi lan lan nga wax exactement. yéen li ma wax ni ma ci jaaraat comme que yow comprendre. ah mais mais yéen vous n'avez pas compris man c'est ce que j'ai compris ben, euh, mais je déroule. mais mais peut-être même bu waxul loolu. oui peut-être Ibrahim Pouy euh, daf la trahir mais man loolu laa dégg. maintenant waaw ba tey maintenant oui je je continue moi je suis pas là pour polémiquer. alors je continue. oui très bien je continue Ibrahim Pouy. d'accord maintenant maintenant je continue. xam nga Mohamed. Mhm. c'est-à-dire que réew kenn du ko yoree ci diw dina fexé ba diw du dem. c'est ça. réew kenn du ko yoree ci. je ferai tout pour que Karim Wade du dem réew kenn du ko ci je ferai tout pour que Khalifa Sall du dem. réew kenn du ko yoree ci je ferai tout pour que Ousmane Sonko di dem. parce que qui n'est que le président de la République du Sénégal. Mm. au soir du 25 février 2024 amul fi kenn ñu tok kenn ku ko xam. Mm. amul ñi jité ak ñi opposé wu kenn ko xam ñi ñep njort bu rafet kese la ñuy dem. Mm. amu ci candidat boo xam ne taxaw na nekk un candidat sérieux bu jàkkaarul ne dina dem fanaani palais mhm. keroog bu ñu defee prête kii li nga xam ne mooy prestation de serment mhm. donc amul lu war a jar aujourd'hui bu ñuy wax démocratie bu Sénégal bu ñuy wax tey Sénégal ak li nga xam ne def na ko fi ci ay jéego ak ñu fi jot a jar mhm. lu fi mën a jar aujourd'hui faire tout pour empêcher un candidat dem ci élection présidentielle beneen bi mooy ñoom ñi fare ci nguur souvent dañuy reprocher ni faré ci Pastef ak ñi faré ci opposition que ne joxuñu ci justice le justice dogal ñu non non mais quand on entend un agent l'agent judiciaire de l'État mhm. muy joxañ baramu tuuma mhm. le juge bi nga xamné ne mën ko nangul un politique Ousmane Sonko def n'ako fi mhm. néna na xam Diallo est un adversaire politique ñep di dégg même si lolu ken mënu ko nangu wala kenn mënu ko rafetlu mais c'est un homme politique qui était quand même dans la politique bo xamante mom japp na ne ma xam jàlloo li mu rendre ci wàllu yoon tegu ko ci yoon moom loolu la jàpp mu dénoncé ko mhm. keneen ku nekk ci politique xëy na yow boo ko dee wax ñu naan ci politique mais Mouhamed ñun ñi taskatu xabaar yi sax mhm. taskatu xabaar yi sax xanaa ñun du duñu duñu duñu dénigré wala ñu ñaawlu doxalinu yenn taskatu xibaar yi nga xam te ne pourtant am na lu ci ñuul lu ñu war a mën a wax les avocats qui plaident pour Ousmane Sonko amul benn avocat boo xam ne dina génn dina wax nga jàpp ne li mu wax même s'il n'est pas d'accord dina ko wax dans les règles de l'art mhm. mais dina ko waxee noo xamante du ngagn doxalinu avocat bi nga xam ne la jàkkaarloo mhm. agence judiciaire de l'État bu joxañ baramu tuma un juge qui a fait même sortir l'UMS de ses gonds ba UMS génnee un communiqué moo lay wan affaire bi dafa yegg ci état bo xamantene ne dafa dépasser sax li nga xamante ne aujourd'hui mooy hein. ñun li ñu amoon ci mm. sunu ay fondamentaux mm. li nga xamne ne moom doon ñoñal sunu institution mm. et li nga xamne mo moo doon ñoñal l'indépendance et l'honneur même de la justice c'est compliqué tay bu fekkee ne ci sen biir yéenay ŋañ ŋaññante yéenay xasante mais opposant bi nga xamante mi ngi de l'autre côté bis bu xalé bu justice mm-hmm. je ne pense pas que les que l'agent judiciaire de l'État mm-hmm. wala les avocats ñom ñoy ñëw diko diko di ko ne ko li nga wax du non parce que ñom ci sen biir ñom ñoo njëkk a xawante seen sutura xamante seen war mm-hmm. l'État wala bok dëkk bi dañ fi tek ay ay ay ay de recours yo xamante ku nekk am nga sañ-sañ li ñu jël comme dogal bu dee neexu la surtout des avocats man politique bu taxaw di ŋaññi wala nga taxaw di dénoncer un Ousmane Sonko un Bougane un peut-être euh, euh, Abdourahmane Malik Gakou bu taxaw japp ne de justice mais lolu ce yow sa sa cëgal la mhm. c'est-à-dire que yow sa sa xalat ngay wax sa liberté la mhm. mais yow tu es agent judiciaire de l'État tu fais partie des avocats de l'État et tu recuses un juge oui ça ko bind recuser ko am loolu dafa bokk ci li nga xamante ne hmm. moom la ñu may. mais façon bi circonstance yooyu et puis indi ko ci voie de presse. di ko di ko wax. Hmm. que ne d'accord ci ba pare dem collé ko 16e adjoint au maire que ne dafa am ay liens de parenté. ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko le frère. bi nga xamante ne moom mooy sixième adjoint au maire je pense que loolu dafa dafa dafa dafa dafa delloo Sénégal quand même euh, foo xamante ne je pense que ne am na ay juges yoo xam ne tey bu ñu leen ko waxoon dinañu am lu leen metti c'est ça te loolu heureusement qu'on a des juges nañ ko fi wax na ko léegi depuis les affaires d'Ousmane Sonko la ñuy dégg juge bi dafa far fii wala ñu dégg juge bi parce que mm. xet bi la fat mm. mm. wala juge bi parce que mbokku diw la wala juge bi parce que rakou premier adjoint au maire la je pense que on doit c'est-à-dire que dañu dellu ginnaw on doit dépasser ce débat c'est ça j'ai vu tout à l'heure je pense ben poste bu ñuy wax ne Mamadou Lamine Diante mi ngi expliqué et pourtant Latif Koulibaly frère rendre na fi ay décisions en tant que juge. Mm-hmm. te pourtant il n'a pas été décrié. parce que dañoo japp ne il s'est conformé à la loi. Mm-hmm. ba tax mu dem rendre des décisions de justice. Ah, ah, ba ci jikko ci cour suprême. et pourtant son petit frère était dans le gouvernement la que ce soit le premier adjoint au maire que ce soit le sixième adjoint au maire cest dit dire que waaw kay. kuñ ci je peux être journaliste et avoir un frère juge. mais bien sûr peux être journaliste et avoir un frère ou une sœur bu nga xam ne day day rendre justice est-ce que da ngay dem creuser ne

nga un ennemi aujourd'hui ci ñi nga xam ne ñoo far ci nguur léegi ñom Sénégal dañ ko bëgg diviser en deux ñi dañu far fii ñi dañu far fii ba dafa dem ba ci justice ba yow tay ji tay bu fekkee ne dañu lay juger ci loo xam ne àndoo ci nga xas kooku ngañ ko aujourd'hui lool moom moo ñëw li amoon ci côté moom moo ñëwaat ci côté bii mm-hmm. mais li tax mu ñaaw mooy yow tu es de l'État tu es quand même du corps bi nga xamante ne moom mooy justice ba pare ngay ŋaññi doxalinu koo xam ne yéen ñaar yéen a yéen a bokk koor ah alors que tu as des voix de recours et le message le, le communiqué de ah l'UMS je pense que est un très bon communiqué boo xamante ne dafa ñëw pour recadrer les choses te kenn du ne UMS mi ngi door a wax UMS dénoncé na fi des pratiques yoo xamante ne teg nañu ko ci kaw justice bu Sénégal jógee ci Ousmane Sonko mu wax ko mu ñaawlu ko si cette fois ci UMS ñëwaat ñaawlu li nga xam ne moo génnee ci agent judiciaire de l'État moo lay wan ne eh, l'UMS elle est au juste milieu que ne moom son souci l'honneur et aussi l'indépendance de la justice qu'il faut préserver non non avant ñu euh, il nous reste 20 minutes il faut que aussi qu'on avance on aura l'occasion mais mais après su ma ñëwee bu attaqué thématique après comme fekkee am na bëgg mais il faut que ma ma joxaale une question nous ñu ñu ñu euh, ce gouvernement 2 euh, wala ce gouvernement bas 2 Amadou 2 un gouvernement de mission on va vous donner l'occasion parce que peut-être être euh, euh, le gouvernement de de de, alors un gouvernement de mission ou euh, où démission c'est la mm-hmm. question mm-hmm. hein. non formuler maintenant lan nous de façon concrète qui évidemment qui est le gouvernement souffre que wala si ce si ce ne sont que que des promesses comme d'habitude on a on a l'habitude si tu as envie de rebondir par rapport problème aussi. waaw bëgg naa si rebondir mais xam naa du sore. xam nga tey ci république bi ñu nekk li gën a sacré ci suñu république moom la ñuy muy la justice aujourd'hui nous avons une justice déshonorée par certains membres du gouvernement. c'est sacralisé. xam nga wax ngeen ko léegi ñaata yoon lañ fi gis ay magistrats génne dogal wax ay membre ñenn ci membre gouvernement bi taxaw ni décision bi ñu jël dañ koo jël parce que ci parti bi lañu bokk l'affaire Mame année la confirmation tey ki njëkk atte atte bi dafa atte génn ñu ne Pastef la bokk ñu demati ci rapport Covid 19 bi ba rapport bi génnee ay magistrat intègre génne seen rapport def liggéey bu xarañ génn ñu ne leen lan la ñu ñu ñu ñu qualifié leen ci benn parti politique muy Pastef xam nga nag réew bu demee ba toll à ce niveau là je pense que ni war nañ taxaw xolaat suñu bopp. Mm-hmm. gis nga magistrat yi nañu leen bàyyi ñu liggéey seen liggéey na leen exécutif bi bàyyi ñu liggéey seen liggéey mm-hmm. y a des magistrats comme vous venez de le dire intègre yoo xamante ne ñu ngi def seen liggéey comme ni ñu ko war a defee absolument mais dañu leen a bàyyiwul seen sago ak seen xel parce que dem li nga xamante ni l' agent judiciaire de l' état def na ko kooku dafa mérité sax ñu sanctionné ko mm-hmm. parce que la mu def du cëram la mu def du cëram mais question bi rek mooy man li may interpeller directement mooy ñi nga xamante ni tey ñoom la ñu jox àq ak yelleef pour ñu protéger ñi nga xamante ni ñooy magistrats yi pour ñu mën a def convenable seen liggéey muy le conseil supérieur de la magistrature hmm. donc non ñooñu nañu def seen liggéey gis nga état yi ñuy jël les états de référence là seen jaar-jaar ku ko xool xam ni justice kenn du ko foowee. seen révolution yi ñuy tudd yëpp parce que parce que justice bu tëddeewul njaxanaay. d'accord justice bu tëggul yoon nga ko waral. par rapport nag ak gouvernement bi nga xamante ni gouvernement de mission et de de de combat defe naa loolu nga wax. oui maa ngi nuyu Mame Diarra Diallo. nee na musul gis musul gis gouvernement bu bëri slogan yi nii. <laughs> foofu laa doon jëm. xam nga gouvernement la bu nga xamante ni dañu habitué ak des slogans te slogan yi nag mën naa ni sax en quelque part c'est des slogans porteurs d'espoir su toutefois gëmoon nañ ko tegu woon si yoonu slogan boobu ñu wax Macky Sall avant son événement à la tête de ce pays il nous avait promis de bonnes choses la bonne gouvernance patrie avant son parti réduction nangam nangam su loolu bokk na ci lu sax sénégalais yi tabb ko parce que ci slogan la ñu gëm loon slogan la ñu jaay gouvernement voilà sobre et vertueux te wax na ko fépp ci àdduna bi théoriser na ko fépp nag mais bi ñëwee la réalité est tout autre si lañ commencé gis ay scandale gis ay leneen ak leneen gis ñu jël la machine judiciaire muy créé yi topp ci Karim Wade entre autres tey bu ñu ñëwee defe naa wax naa ko keroog ñu ngi si seen dixième gouvernement indiwaat nañ beneen slogan bu bokkul ak bi Amadou waxoon muy gouvernement d'attaque tey gouvernement de mission mais xam nga le plus important dans tout ça mooy nga xool. bi amaat na attaque de wala. amaat na attaque émission attaque émission la. de combat et de mission. et de mission de combat et léegi Mohamed ci li ministre bi wax le premier ministre muy Amadou Ba wax ak li réalité bi wane dafa am paradoxe bu am solo bu ci am parce